groupement takku liggéey bu Kër Mangari si mbéyum mu sell. Mm-hmm. waaw waaw sëñ seen ñu ngi nii ci tool bi. Mm-hmm. tool bi ñaata hectare la. tool bi nekk cinq hectares la. Mm-hmm. waaw. waaye da ngeen séddale ay parcelles. dañ ko séddale quarante six parcelles. waaw quarante six personnes ñoo fiy liggéey. ñoo fiy liggéey. ñoo fiy liggéey waaw. ñaata quarante six producteurs. waaw producteurs yi ñoo fiy liggéey. ñaata jigéen ñaata góor. jigéen ñi trente six lañu. góor waaw dañu gis ni daal jigéen ñi ñoo gën a taxaw fi mu toll nii góor ñi si wàllu liggéey ñoo leen ëpp yenn jot yeeg yooyu moo tax ñoom la ñuy gën a jàppale daal pour ñu gën a miin liggéey bi. liggéey tool bi kañ la commencé. liggéeyu tool bi mu ngi commencé 2015. Mhm. waaw lan ngeen fi njëkk a bay. bay nañ fi soble bay fi tamaate bay fi kaani bay fi nawe ay bisaab ay basante yooyu. Mhm. waaw yooyu daal lañ fi si mu njëkk ma waaw. kan moo leen di jàppale ci agricole. Mhm. waaw ñoo ñuy jàppale si. seen lëkkaloog agricole nu mu demee ndax mën nga ci ñëw nan la nan la dooree. waaw bi ñu ñëwee fii dañuy waxtaan ak waa dëkk bi nii bu fekkente ni mën nañu am terrain boo xamante ni bu ñu leen jàppalee dinañ ci mën a liggéey ñu def si ay jéego biñ ci waxtaanee ak chef du ak njabootam gi nga xamante ni ñoom la dëkkal fii ñoom ñu nangoo joxe seeni tool ñu ñëw ñoom ñoo ñu xëccal ndox mi andil ñu ko fii ànd ci ak yeneen i partenariat nag. waaw bi ñu dikkee ñoom ñoo ñu ko clôtural ba mu nekk benn bunt bi muy ñëwit joxale nañ ñu trois cent mille pour ñu mën koo dimbali ko muy li nga xamante ni moom mooy fondement tool bi jiwu it ñoom ñooñu ko lebal ñuy liggéey bi ñuy liggéey ndox mi ñoom ñooñu koy fayal bu weer dee bu ñu demee ba fin campagne bu ñu jaayee ba pare ñu fay leen waaw noonu la la ñuy liggéey ak ñoom sëñ Sène ndax nemmiku ngeen ay jafe waaw am na ay jafe-jafe nag parce que ndox mi niñ ciy liggéey nii dafa xaw a métti seer na te des fois it dañuy dem ba ci biir campagne bi pression bi nga xamante ni moom lañu war a mën am pour mën a liggéey ñu ko am des fois da ngay jóg fajar ñëw fi pour war a liggéey nga ubbi sa robinet doo am ndox waaw loolu it doon nañ ci kii ak waa forage bi. xam nga nag ay jafe-jafe la yoo xamante dafa xaw a métti parce que nga jëmbat ba pare war a roose ñëw am problème ndox day xaw a doy waar te ba pare ndox mi seer seer googu nga xamante nit am na ñoo xamante biñ ko liggéey am nañu poids mais biñ jaayee seen kii yëpp mënuñoo fay ndox dañuy mujj làmb seen poos <laughs> pour fay ndox. ñu ñëw ci production bi. Mhm. daaw ngeen tàmbali mbay mi. waaw. Euh, nu résultat yi demee maanaam ndax góob ngeen bu baax. waaw macha allah góob nañu bu baax. soble ñaata ngeen góob. soble biñ ci góobee tonnage bi bari na parce que am na ñoo xamante ni am nañ ay huit cent kilos am na ñoo xam ne am nañ sept cent am na ñoo xam ne am nañ ay cinq cent ñi gën a néewle daal ay quatre cent kilos trois cent kilos hmm. waaw. kon mboole seen euh, bay ngeen ñaata tonnes dix huit. dix tonnes. ci tool bi loolu la tool bi waaw tool soble. soble waaw bu bi aussi. tamaate bi moom. moom xam na baax na macha allah moom it xam naa ne moom it bi moom it bari na daal. kon daal mbay mi gis ngeen ci seen bopp. waaw gis nañ ci suñu bopp wax dëgg yàlla. léegi nag ndax am na yeneen jafe-jafe. waaw ndox mi. waaw am na ay jafe-jafe parce que des fois it dinañ am problème ay yàq yu sew. si biir ay ruur yi si biir terrain beeg yooyu daal waaw ak problème mu marché bi daal bi ma a wax nii bu ñu bayee ba pare fan lañ koy jaaye ak yooyu day nekk ay jafe-jafe waaw yooyu daal bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni xaw nañoo jaaxal fii si tool bi mhm. waaw. ba ngeen di mbay mbay mu njëkk ma ak mbayum léegi nii euh, lan moo ko wutale waaw ñun bu ñoo jàppoon ni mbay munoo bay te defoo si engrais munoo bayit te defoo si yeneen xeetu produit yi waaw mhm. mais daa wax dëgg yàlla bi gaa yi ñëwee teg ñu si aw yoon. wax dëgg yàlla jàpp nañ ni terrain yi daal ku ci liggéey te jaar si yoon bi nga war a jaar te déglu gars yi nga see am te du ànd benn engrais wax dëgg yàlla ñun ñu ngi ciy gis suñu bopp. si côté boobu ci naka par exemple nan ci gën a gis seen bopp ci lan ci yan fànn. parce que fumier bi nga xamante ni moom la ñuy utiliser fi mu toll nii muy fumier fas bi nii ak fumier day ginaar bi kooku mën na remplacer engrais bi buñ ci waajalee terrain bi waaw te yooyu moom la ñuy jàppale. wàllu wér-gu-yaram nag. wàllu wér-gu-yaram macha allah ñu ngi ko si sentir daal. Hmm. waaw parce que boo seetee li ñu fi ñorool nii lim la mën a aar ci sa wér-gu-yaram beneen kii bi mënul la ko woon a may te même kii bi temps bi nga ko mën a denc mu mun dire bu la ñu doon def engrais mënu ko woon a am loolu it ndimbal la wax dëgg yàlla waaw. kon jàpp ndal alhamdulilah ñu ngi leen di gërëm waaw. ak ñi ñu àndal di sant it waaw wax dëgg yàlla ñun ñoo taayal waaye moom taayal la toujours bu jot mu ngi ñëw di bàyyi ay yitteem di ñëw ànd ak ñun si liggéey bi di ñu jàppale. fàttali ñu tur ak seen groupement. Birane Sène président groupement takku liggéey bu Kër Mangari si mbay mu sell. Kër Mangari fu mu nekk ci ban Kër Mangari commune Tasset la bokk waaw arrondissement Noto. jërëjëf waaw jërëjëf. mbay mu sell ñun yàgg nañ cee dugg dugg nañ cee mu bëgg mat fukki at ci ren ndax man dégguma tubaab hmm. dugg nañ ci fukki at ci ren. waa CIT ñoo ñu yoroon waa agricole ñoo ñu yore woon ñoo ñu yor ba léegi waaw. dañ noo won dañ noo wax mbay mu sell dafa am njariñ ci doomu aadama am njëriñ ci wér-gi-yaramam loolu moo tax ñu dugg ci mbay mu sell. bi ngeen waxoon gis ñoo koy gis. liñ waxoon ñoo ngi koy gis ndax noo ngi di ci lekk lekk gu di ci mbéy mbéy mu sell di ci lekk lekk gu sell di ci am si am wér yaram sunu njaboot di ci am wér yaram di ci ruus ñu di ko di ko jariñoo di ci jariñ suñuy njaboot. Euh, dañoo seetlu ne nii xaw ma yéen ci seen groupement ci la tool bi jigéen ñi ñoo fi ëpp doole. waaw. ndax ak juróom ñaar juróom benn si ñeent ak juróom yi ak jigéen benn waaw euh, lool jigéen ñi dañoo takku gis ci njëriñ am ci am ci njëriñ loo xam ne lii dinañ ci jàpp buñ luñ ci am dinañ ci jàppale seenu njaboot jàppale ci ci biir kër yi di ci lekk lekk gu sel lañ daan dem ci àll bi dem di taxawaalu ji liggéey ak defi yëf di fari ay matt di andi di jaay aka def ay jafe-jafe yooyu yëpp bi ñu ci duggee tey loolu amatuñu ko ñoo ngi ci biir tool bi di liggéey di ci jariñ ci jariñ sunu njaboot di ci am wér yaram. Euh, saison bi ñu génn. waaw euh, jigéen ñi ñun jigéen ñi damaa yor liste bi de waaye wax dëgg liñ ci am bari na waaye nag dañ ma ko waxewul nii ba ma yor liste bi waaye kenn ku nekk li nga ci am bari na ndax lépp loo xam ne yaa ngi ko daan yëngu di ci am ay coono coono yooyu teggiku na wàññiku nga te li ngay liggéey fii yaa ngi ciy am njariñ loo xam ne lii ah gis nga ci loo xam ne gisoo ko woon ba nga ci nekk ba nga nekkagul ci tool bi. am nay jafe-jafe kay jafe-jafe yi am ñu ndox mi seer na moom ndox mi suñu première jafe-jafe mooy ndox mi ndax mètre deux cent cinquante metti na ci kuy liggéey fii boo ko lisee ba nga xam ne weer wi dee na buñ la ko fayoo dina seer seeraay boobu moo tax sunu liggéey bëgg nañu ko gëm nañu ko waaye ni mu war a mën a doxe ba nu gën ci am njariñ loolu des na ñun daal suñu première jafe-jafe mooy ndox mi ndox mi daal moom am na suñuy jafe-jafe trop beneen jafe-jafe yi xanaa ñu dolli ñu ñu ay neefare yi nga xam ne moom lañ koy def ndax mbéy mu sell la loolu daal mooy sunu jafe-jafe yi nu gën a gun xam. Euh, euh, suñu béyee ba pare njaay mi dinañ jafe ndax bay ba pare doo ko doo am foo ko denc ñun amuñu magasin buñ ko def amuñu bascule yu mag yu ñuy peesee jafe-jafe la ci ñun ñaareel ba ah suñu béyee ba pare fu ñu koy jaayet dinañ jafe ndax suñu sañoon dinañ am ay baana baana yoo xam ne day jóge ci àll ba ñëw di nu fekk fii di jënd li ñuy jaay muy gën di suñu noppal di noppal nu gën cee gis suñu bopp même su ngeen paree yéen a koy jël yóbbu bi. ñaare bu ñu paree a ah, ku mel ni Ousmane Bassoum mi ñuy jàppale dina liggéeyal di dina jàppale suba ngoon dina dina léeg mu am ay nit yoo xam ne dina nu booleeg moom. dina nu booleek moom ñooñu bu ñu bu ko déggee dina ñëw jënd mbaamu mu taal otoom ñëw jël ay benn benn ay saaku dem yóbbu jaay yeneen yi ci des yëpp ci sunu luuma yi lañ koy jaay te xam nga luuma yi tool yi nii. du duñu xañ na mbéy mu sell ñuy mbéy defuñu mbéy mu sell waaye liggéey bi dafa jige te marché yi dañoo gàtt te te te roos te mbéy marché yi dañoo gàtt te ñoom roosé wuñu utiliser wuñ li ñuy utiliser loolu mooy sunu jafe-jafe nun daal li nu gën a gën a boole ci li nu ñorit mbéy mu sell mii nuy béy bu nu sañoon di ngeen nu wutal lu ñu nu màndarga mu ñu nuy xàmmee moo xam ne fu nu yóbbu sunu mbéy dinañ xam ne mbéy mii mbéy mu sell la léegi ñu nit ñu xam ni mbéy mu sell mii moom dañuy liggéey mënta bokk ak mbéy yi lu loo xam ne lii moom la ñu leen war di defee ci marché mbaa suñu demee ci marché bi ba xam ne xay na saxit euh, njaay njaay la ñu xàmmeenu daal ba xam ne ñun noo ngi liggéey mbéy mi nga xam ne wér-gi-yaram moo tax mu jóg ba nit ñi sawar cee liggéey bu ñu ko yoree. kon daal kooku ci gàllankoor yi. waaw kooku ci gàllankoor yi ci la waaw. daal bu ngeen ci marché mën a xam waaw mooy produit mbéy mu sell produit bi. waaw. loolu moom ci gàllankoor yi la. waaw euh, sànq ba léegi problème ndox bi dafay jël waaw euh, ndax loolu dafay tekki ni euh, ci noor bi donc ngeen di béy mu sell. waaw ñun nag noor bi moom lañu ñu commencé gun ci tool bii mbay mu sell moo tax te xam nga mbayum noor il faut ndoxum ay robinet lañ yor amuñu ay teen amuñu ay siyaan ay robinet lañ yor te ay robinet seen facture yi dafa seer. lool seen mètre kii bi dafa seer lool la.